ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq ñëpp jiital ci nuyoo bi mu Cheikh mënta Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu njabootu Cheikhul Xadim gépp ak jullit yi fu ñu mën a nekk eh, di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne danañ ñu baaxoo topp ci seen jataayu gàggantiku gii di am ci weer wu nekk le 23 ak la 9 ci weeru tubaab bu nekk eh, indi ay bindi gàgganti ko ay laaj yu aju ci diine yoo xam ne nit ñi danañ ci jariñu euh, te duñu yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci GMT TV muy chaîne de la grande mosquée de Touba wala MKTV di seenu Muxaddamatul Xidma bu jumaay Touba euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen sant it ci ñaan yi ak wax yu baax yi nga xam ne yéen a ngi koy wax di ko jëmale ci sëriñ bi ak di ko jëmale ci waxtaan wi Eh, mbokk yi ñëwaat nañ fii ci Darou Salaam daam ci ka kër Serigne Mbacke Abdourahmane moom mi nga xam ne moom la ñuy indil suñ binti gàggantiku yi ngir mun ñu ci gàggantiku ci suñ diine eh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu eh, te di la dalal salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ni ñuy bàyyi xel ci ëttub xam-xam bii ni nga ko waxee te ngeen di ko taxawee di ñaan suñu moom gën leen a sàmm gën leen a dëgëral di siyaare bu baax Mawlana Cheikh Mouhamed Mountakha di ñaan suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral di nuyu sëriñ Afia imam yi nga xam ne liggéey bi ci loo xam ne nekk ak mbokk yëpp yi nga xam ne ñu hmm. dafa gis ne ñoo xam ne rek bala ñoo tàmbali li xam dañ naan bismillah doo ko tàmbali allahu akbar allahu akbar loolu yàlla xaw ma furuuj fu mu jógee xanaa laal mu jàpp ne bu ñu tàlla jëfa bismillah <laughs> waaye nag ci li xaab moom amul loolu hmm. li xaab daal mooy boo jékki-jékki ne allahu akbar ñi ne ci biir jàkka ñëpp danañ yëg ne hmm. julli gaa hmm. mbokk yi dafa laaj ma ne ki nga xam ne dafa wàcc soxnaam ñetti yoon euh, nee na ginnaaw bi am keneen ku ko takk euh, ba wàcc ko te yëgu ko maanaa te yëgul yëgul loolu ba noppi ginnaaw bi mu mu takkaat ko beneen yoon ndax nee su ko wàccee day day day day day day lim benn benn passé wala da koy accee ca des maanaam daa bëgg wax ne am na ku ko ba mu ko wàccee ñetti yoon waaw takk na ko mm-hmm. wàcc ko moom mu door ko takkaat waaye moom yëgutoon ne mm-hmm. nit takk na ko waaw maanaam nga xam ne moom borom dem dem jubal daal waaw am na bàkkaaru def lu bon mm-hmm. doon def lu bon loolu mu ngi mel ne li ñu daal nettali naa ne waa joo xam ne dafa takk soxna te gisante wuñ mhm. ñu dajeeg moom ci barab mu njaaloo moom mhm. njaaloo wuñ waaw mhm. am nañ bàkkaaram njaaloo ndax yéene ji waaw ndax yàlla yéene woon dañoo yéene woon njaaloo yàlla andul andul waaye ñaar ñi sëy moom te boo ko see dox seen diggante njaaloo wuñ moom ginnaaw wér na ne ak buñ dox na fa bi muy takk moom bàkkaar la jublu woon am ndax xam na ne wërta takk soxna si ti jaarut cib sëy ba muy takk yéene wutoon loola ko ama bàkkaar loolu waaye nag takk na ko xam war na ko takk kon bu ko takkee nag sëy bu bees la ñetti fase bu xasee am baax na soo ji am sëy bu bees la maanaam bu koy takkaat buum gu mat sëkk lay doon. itam da koy ñett mm, mu doon kii door ko araam. Mm, macha eh, leer na kii dafay laaj ci wàllu miraas mu ne eh, ki nga xam ne jigéen gi nga dafa faatu dafa faatu waaye bàyyiwul kenn ci aw askanam ci wetu baayam wala ci wetu yaayam lu dul daal ne gis nañ ne am na doom joo xam ne judduwul ci sariya. mu ne loolu waaw ci jigéen la xam nga doomu njaala buñ koy wax bu hmm. yaayam de hmm. doomu njaala bàyyi la amut waaye am na ndey maanaam kooku ku faatu bàyyi doom la hmm, kon doom ji day doon moo koy doon ndax doom la doom la joo xam ne kenn nattul du ma yaayam jafe-jafe kay mooy bàyyi la amut ci jañoo amut ku mbokkal bàyyi loolu di suñ bi saa sooy bu yéeme la fi ne maanaam tam léeg-léeg gis koo xam ne moom man la man yaay moom na ñi mu bokkal ndey fi ne bu la doon boo moon a am nañ bàyyi mm. moom ñoom ñoo bokk la wala doomu njaaro la mm-hmm. ko yaay ji ko bàyyi la amul ki mu amul la mu doon bàyyi ci charia la amul mm-hmm. waaye nag am na yaay macha allah moom yaay moom dañuy doonante mm. askan yaayam lañ ko jox moo tax doomi njaaloo sant yaayam ndayam lañ ko jox uh-huh. kenn woo ko jox sant ak góor ndax amul ci sariya góor gu buñ ko yéegal uh-huh. ñooñu ci genn ci gaño gaño amul ci kenn ku bokkal uh-huh. waaye nag am na ndey am na maam ju jigéen ñooñu dañ ko doon fi ne am na ay doomi ndey ñu bokkal ndey yëpp ay doomi ndeyam lañ mm-hmm. euh, dañu euh, moom ñaari maamoom yi maamoom ñaari ñaari ñett ñuy julli daal hmm. wala ñuy topp ci ginnaaw imaam rek sujjóotub xam xam la bi imaam sujjóot dañoo war a ànd ak moom sujjóot wala sujjóot imaam bi dana doy maanaam maanaam li mu jublu mooy hmm. sujjóotub xam la am na hmm. imaam bi julli na bay bëgg a sëlmal ñu gis ko mu sujjóot ñaari sujjóot ndax ñoom ñi nga xam ne ay maamoom lañ dañ ci topp sujjóot wala wala dañu xaar waaw xam nga imaam moom bu xasee jiite ay nit sujud bu ko dal topp na imaam boobu uh-huh. doonte ñoom juubuñu uh-huh. maanaam moom lam juub day sujud doonte maamu ci ginnaaw juubuñ ko uh-huh. bu sujootee dañu war a ne moom sujud muy xabla muy baada bu dee baada salaam nag xëy na bu dee masbuq koo xam ne iliman da koo raw ay rakka moom du ànd ak iliman di ko sujjoot bu iliman sëlmalee day jóg moom àggale julleem waaye nag bu sëlmalee dana ko fay ginnaaw ilimanam sujjoot na ñaari sujjoot ginnaaw bu mu sëlmalee moom day jóg àggale juleem jamono iliman bi su day jóg àggale juleem hmm. ndax bi ñu sëlmee lañ tàggoo bu àggalee li ko dese fay nag ñaari su jóot yooyu waaw bu doon xam la salaam nag donte juleem matagut day ànd ak iliman ko hmm. waaw donte yow fekkee mën ngaa ñëw ci rakkaab bu mujj nga ànd ak iliman képp te ci rakkaab bu njëkk lu tax da lay yóbbaale bu su jootee hmm. na macha allah Eh, mbokk mi dafay laaj mu ne daal dafay gis ci dëj yi dëj yi daal gis na ne bu fekkee ne defar nañ nakk yi dañu indi ay ñu toog daal ñoo xam ne da leen gis ñu def nii seen loxo tari dara daal di xaaj defaat nii tari xaaj xaaj ko ñeenti xaaj xaaj ba nañu ciy tari doog dank-dank yi teg ne loolu <laughs> daal nee na la bëgg a xam ndax lu mu doon day dafa dafa bokk ci diine wala ci aada wala lu wala lu mu waaw xam nga ci ab dëj daal sëñ Abdou Lahad li ñu islaam jàngal moom jumi mm. nàkk moom jàpp naa ne ci suñu aada la bokk mm. la saxoon daal ba Jaafar génnee àdduna mm. radiyallahu taala an ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne defar leen aw ñam jox ko waa kër Jaafar mm-hmm. ndax kat daa am lu leen soxal ba tëluñoo taw boobu nag ñam xam nga kenn ku ne la nga am nga taw xëy na nàkk yi li ma mag mel ma wax li fi indi bu njëkk bu nit masaana faatu hmm. bokk yi dañuy sore ñuy takk ay fas di yónnee ci nit ñi dinañ ko yëgal ngir ñu fekk si rob hmm. booba ñam yombut hmm. li gën jege mooy defar pepp bañ mën caa lekk nga xam ne kon nakk ngay pepp nga jël soq ko liggéey ci loo xam daal boole ko suukar moom mooy li gën a jàppandi boobu lekk amul boobu it aw ñam la woon nga xam ne bu nit ñi dajee dañ ko jàppe ay sarax ndax fa ñu jógee dëkk dëkk lay doon day sori day sori buñ buñ buñ dencee ñaanal ko nit ñi lekk loola tàggoo te it ñam la woo xam ne mën na téye nit mën na téye mbuusa bi jëm ci amee ñett ñett da nga koy xaw a dëgër ah, waaw naa leen wax rek a dem loolu moo doon jubli na nag man ne ci sir mën a jàngale hmm. bañ nit ñi koy def ñafa di coowaloo ko nangam hmm. ñu naan koy nakk-nakk da ngay jàng nangam da ngay jàng li xalaas da nga jàng nangam waaye dóorul ne diine moo lënkaloog loolu moom waaye hmm. nag xëy na am na ci ñoom mu mën a jàngale ñoo xam dañ naan def ne nàkk ku koy def da ngay wax tudd yàlla da ngay jàng lixlaas ngir rek xëy na mbooloo bu ñu ko defut fu ñu dajale bañ ñu nekk di wax leneen rek mm, ñu fexe ba comme ñi defaatu mm. seen xel war dem ci seen borom ñu war caa am luñ jànge mm. bu ci desit nag jamono yi ñu jàpp naa ne nekkatul aju noonu ndax fi ngay gis saa boo ko defee fukki nit ñoo tàll dana am juróom-ñaar ñoo xam dañ naan baax na waaw kay ah dugub nag wéri su ko yàq li ci desit nag seen blaat li ma tam moytu hmm. mooy bu fekkee ne borom kër gi alal ji mu fi bàyyi woon ci magasinam ngi di ko dundee hmm. ci lañ jël nàkk ca ci lañ jël nàkk ca dañ ko bàyyi xel hmm. ndax bu fekkee ne ak ay gone yi ndaw la bàyyi ay jirim alal jooju am na ci loo xam ne ñoo ko moom te alal jirim moom xam nañ li ci yéen ci yàlla Muhammad wax ci ku ko lekk ak suñu borom sax na ku lekk alal jirim te su boobaa buñ ko jël nañ bàyyi xel ne jël nañ nangami kilo ci pap mi mag nga man nga xam ne ay mag lañ mu kalaf lañ moom mm. féetewoo ko ndax gone moom kenn du ko saraxeel kenn du ko mayel àllam ñoom waruñoo bokk ci loolu su ko defee ñoom bu ñu koy boo liggéey xam ne dañ ko lekk wala ñu dugal leen ko ci seen wala ci miraas bi mm. wala bu ko keneen gàddoo nag nga xam ne moom na ñëw andi pepp ne nañ ci def nag saraxe ngir yàlla buñ dee nag daal ku fi ko daal baa boobu buñ fa jëlee nañ ko mag ko ña mm-hmm. nañ ko génne ci seen wàll waaw loolu de moom ko génn ci seen wax loolu mën na. moo tax xam la lu loolu. nit mën na cee lekk àll jéem. téegu jërëjëf te àll jéem du rees bàyyi xel loolu seen taal. Euh, mbokk ñi dafay laaj mu ne ñi nga xam ne dañuy ay astronomie yi nga xam ne dañuy dem ci kaw jaww ji. ñu dem ci kaw jaww ji euh, dem ba àgg foo xam ne léegi euh, addina bi dafa am nu ñu koy tiimee walla dañu nekk ci ci ci bul bi maanaam ñooñu su waxtu julli jotee maanaam nu ñu def. ak nu ñu jullee ak fu ñu jublu bu ñu julli ak yu demee noonu. ñooñu sëñ bi daal fu jublu baax na. mu <laughs> mais mel ni ni ci addu kaw suuf si rek boo nekkoon ci barab boo xam ne moom xibla féete. Hmm. foo dàkk jublu baax foo dàkk jublu baax na. xibla charte la ci wéru julli ci kaw nga man ko. Hmm. te xam ko nga mën a jublu xibla xam fi xibla féete. Hmm. soo ko noonu xamoo wàcc na la. jërëjëf kii yow laajoon bi xam naa ne aw waxtaan la ndax day laaj lan mooy sunna ak lan mooy biddaa. ak lan mooy jeexital lan mooy jeexitu kenn lu ne ci ñoom daal. waaw sunna de xëy na daa am ay ay waxin. maanaam ci fiq mm-hmm. ci xadiis ci usul yëpp. waaye xay na li ñu bëgg wax fii rek sunna ci dëgg-dëgg mooy la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nekkoon. Mm-hmm. ci ay ci ay melokaanam. ay waxam ay jëfam bu dee ci xadis noonu lañ koy xamle. Mm-hmm. waaye nag ci maanaam lu gën a matale moom mooy loo xam ne daal noonu la yonent bi sax doon dundee. ci diggam ak boromam. diggam ak jaam ñi ci diggam ak njabootam diggam ak këram aw yoonam daal. Uh-huh. sunna ci baat bi ci loxo aw yoon lay firi. Uh-huh. kon yoonu yonent yàlla mooy sunna. nga lu ci nekk nam ci doon dunde ci joxe ndigal nañ joxe nii ci misaal xew yi am na lu ñu santaane woon. Uh-huh. bu ñuy julli am na nu santaane nañ jullee noonu bu na nu santaane noonu bu ñuy ngénte bu ñuy nangam lu ci nekk am na nu santaane boo jaaree fa mu santaane yaa ngi ci sunna bi daa nag mooy nga bàyyi fa loola lépp loo xam ne mbirum diine la nga xaaral la ca yoon woo xam ne bokkut ak yonent yàlla Muhammad doon hmm. loolu bidaa lañ koy tuddee bidaa nag baaxut ndax hmm. loo ci def lu mu rëy rëy doo ci am tuyaaba hmm. man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu foofu radd la yonent islam waxoon ci xadis ba ku sos ci suñu mbir lu ci bokkut mooy ku fi andi bidaa dañ la koy delloo moo taxoon mu wax ne kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar bu defee nag euh, xëy na leeral nañ ñi ne bidaa pas-pas wala bidaa ci jaamu yàlla lay feeñ Mm-hmm. lépp loo xam ne yàlla da koo santaane ne def leen ko nii nga wàcc fa loola wala nga jékki-jékki créé <coughs> créé dara misaal mm-hmm. tey julli juróom julli loo ci a jublu ci lu baax mm-hmm. bi daa lay doon ndax yàlla mi santaane julli juróomi julli santaane waxtu yi mu ko wutal boo ko bàyyi mu wutal ko yeneen waxtu bi daa lay doon misaal jërëjëf daa laaj boobu na xam naa <coughs> kii dafay laaj mu ne kat ku bàyyi taaye ju njëkk ci muy julli ñeenti rakk nga bàyyi ci taaye bu mujj maanaam taaye ju njëkk ji waaw lan lay def. waaw bu fekkee dafa taayiwut moom daa bàyyi sunna. Hmm. ab sunna maakare nag ku ko bàyyi da nga koy sujootal. sujootal bu xabla salaam. bu jullee te rakkaay ba mu mat. Hmm. Hmm? ci misaal moom daa am ñaar rakka waroon toog taaya. fàtte ko ba jóg bu xasee jóg taxaw ba bëti wëm ak loxo yi tàqale ko suuf rek. donte fàttaliku na ko dootu dellu ginnaaw. léeg-léeg imaam yi it maam yi seen ginnaaw bàyyi xel léeg imaam xasu jóg def noonu ñu wéy di ko sàbbaal. bu xasee jóg taxaw nañ jóg fekki. sabal gi xëy na mu xam ne rek waroon naa toog te toogul bu fekkee nag bi ñuy teg ay loxoom loxo yi jotagu tàggale ko suuf wala bët yi tàggale ko suuf bu ñu ko sabalee daa war a dellu toog. bu xasee jóg moom dañ ko war a fekk. xasee jóg ba loxo bët yooyu jóg loxo yi jóg nekk moom di su naan subhanallah rek. dañoo war a jóg fekki ko bàyyi xel na bàyyi na sunna mu hmm. julli gi jeexee ba mu taayee ba sëlmal dese ko mu sujjóot ñaari sëlmal baamuwaat taayee ji ba ci abduhu wa rasuluhu hmm. foofu duñ bëgg muy baamu salaatu alnabi gi wala ginnaaw suñu xabla salaam wala baada mm-hmm. mm-hmm. bi laaj bi nag mooy suñu laaj bu mujj mm-hmm. ngir waxtu yi dab nañu euh, kii dafa wax ne euh, jigéen ji nga xam ne dafa wax borom këram ne ko may ma sama baat te fekk booba ay xarit yi borom këram saal bi daal dañuy am ay nit euh, nee bi mu ko waxee nee na borom kër bi daal ne ko waaw dégg naa li nga wax dégg naa li nga wax nee na si daan ne ko waaw mu ne ndax ñaari baat yooyu rek dana dana tax xase mi tab bi wala euh, dana tax maanaa mu sañ a am euh, beneen beneen boroom kër wala déet waaw sëñ Abdoulaye dégg naa li nga wax day wolof mm-hmm. waaye mm-hmm. kër dañuy wax ci mazhab bi ne borom kër bépp baat bu mu wax soxnaam te jublu ci fase fase la kon dégg naa la ju ñoom moom dañ koy laaj lan la jub bu nee fase ko laa jublu fase la bu nee li ma ci doon mu wax laa jublu dégg naa li mu wax danaa xool ba xam dinaa ko daw bu ma ko daw ñu xam lam loolu moom la jublu ci dégg naa li nga wax waaye soxna sa sukkandiku ci loolu ne tas naa ko lu leer ci bu ko ci yéenee la mën na ko doon uh-huh. waaye li cosaan baat bu moom fasi tax ko uh-huh. da ko ci jublu mu dal ko doon uh-huh. da ko da ko doon waaye bu mu wax rek ne nee na ma digg naa li nga wax kon fasane ma léegi mun naa ngi daw wala sa ñamaam ko benn jërëjëf bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy sopp topp ci émission Gagganti ko jërëjëf euh, sëñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay ñaanale yow suñu borom defal gudd fan ak wér ak kattan ba li nga yéene liggéeyal yàlla ci sa xam-xam lépp nga man ko euh, tam yàgg lool barakati xaadim rasul ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu topp ndax fu ne ci àddina bi la yónnee ay message ngir seen diine euh, bëgg cee xam lu kon loolu it ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax di sant it mbokk yi nga xam ne ñooy tisaare waxtaan yi ci yeneen support yëpp ndax fenn fu nekk lañ koy dugal ngir di gën a yaatal mbir yi ngir nit ñi mën a gën a xam seen diine euh, ni ki noonu tamit kon mi ngi fàttali rek ne képp koo xam ne am nga ab laaj booy laaj muy laaju diine mën nga ko yónnee ci numéro bii 77 531 91 98 wala nga yónnee ko ci 77 678 57 66 boo ko ci defee incha allah laaj bi dina agsi ci Serigne Mbacke Abdourahmane mu tontu ko mais ñu fàttali ne tamit buñ koy tontu ci émission lañ koy tontoo. ci émission bii la ñu tontoo laaj yi kon da ngeen di abonné ci MKTV wala GMT TV ngir mën a jot émission bi saa su nekk émission bi le 23 bu nekk ak le 9 ci weeru tubaab bu nekk lay ñëw kon ñu leen di sant di sant Serigne Abdou Khadir mi réalisé émission bi ak sunu cameraman yi Serigne Mourtada Ka Serigne Ba ñu ngi leen di dig daje allah ci seen beneen jataay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم